jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaan ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ñu ngi arène national arène nationale nag bu ñu fi ñëwee tey dafa am lu ñu fi indi muy CNG de lutte bi ñoo dalal mbër yi nga xamante ni ñooy bëri lutte traditionnelle bi bari na jafe-jafe yi ngay gis temps yi xale yi ñu ngi koy defante ci seen biir di xeex di dóorante ci biir bëri ba ay coow yu bëree bare bëri di am ci làmb ji looloo tax CNG bi convoqué lutteurs yi pour waxtaan ak ñoom ñi nga xamante ni daan day dal seen kaw daan bi dal seen kaw ñi nga xamante ni vraiment dañ leen di dañ leen di dóor source yi wala yu mel noonu dañ ciy gën a waxtaan ak ñoom waaye gis nañ ci convocation bi ñu convoqué ku mel ni booy Faye Serigne Ndiaye 2 euh, gis nañ ordinateur moom it convoqué nañ ko Ngel Jonn convoqué nañ ko ak Doudou Sané ku ci nekk rek dafa am problème bi nga xamante ni am na ci diggante ak moromam bu leen fàttalikoo tuuti Ngel Jonn ak Serigne Ndiaye de ca terrain gaal gi jàmmaarloo woon nañ ba xeex xeex boo xamante ni vraiment bagage yu baree baree keroog yàqu na fa. bu ngeen tuuti boo delloo ginnaaw Doudou Sané ak Boy Faye daje nañ ñoom it laale ci àll bi xeex xeex boo xamante ni vraiment mën naa ñàkk ordinateur noonu Serigne moo duggoon léegi ci biir bureau bi moom génn na. dañuy dem xool ba xam yoon da koo daan wala yoon da koo jéggal wala lan moo ci xew en tout cas lu mën a xew mooy CNG bi jël nañ seen matuwaay te matuwaay yu sévère la ñu jël ci lutteurs yi bàyyi leen ci xel bu baax a baax a baax Serigne Ndiaye nga na ak per di waxtaan. waa gis ngeen per Ibrahima Mbaye mu ngi noonu ak Serigne Ndiaye de ñoom it loolu moo leen fi indi per daa mel ne day wax téléphone. mbër nuyu naa la. waa jërëjëf maa lay fay bu baax. maa ngi am jàmm maa sanam la macha allah. lu waroon sa tànk tey ci CNG bi. waaw gars yi ñoo ñu convoqué woon tey. convocation bi daa mel ni yow yaa njëkk a dugg ci mbër yi. waaw si parce que man dama war onze heures ma convoqué woon mais dix heures demi fii la ma fekk. Mm-hmm. waaw. léegi bi nga duggee lan lañ la wax. waaw dama dugg rek ñu attendre ma laaj ma fay nu mu demee. laaj ma fay nu mu demee. waaw ñu xamal ne carrément kat malgré tooñ na mais itam war a fayal sa bopp. te effectivement dëgg la boobu léegi tamit ma ci am naq baax parce que tey baax a baax a baax. Mm-hmm. parce que wax ay coow ak yooyu te même bu dara suma adversaire lañ ñoo mayante xaalis xam nga mais prochainement ñun ñu bàyyi xel suñu bopp baax. Mm-hmm. parce que làmb ji su ma si duggee man kese ngel ñëwul ordinateur ñëwul keneen keneen ñëwul man ci nu si làmb ji làmb ji am donc ñoo a cër xam ne làmb la rek man nag wax dëgg yàlla tooñ parce que war moom fayal sama bopp mm-hmm. mais réaction ah chaud di si masawu ñëpp di am regret bu baax a baax nag. saaga war naa mën a metti Serigne Ndiaye ci làmb ba mu ba mu ba mu fajal boppam ak làmb ni mu mel. non non pas pas saaga parce que am na ay nit yu coow coow leen mujj parce que du c'est pas la première fois. ak ci paas na pare parce que nit ki bu mu taxaw jotawee dara nga jël gàllaaj ba léegi faal muy def lu muy def dox nga dogaale ko saagaat ko encore affaire affaire góor yàlla affaire góor yàlla te ku ne xam na làmb ak ay bagaasam waaw Serigne Ndiaye mi taxaw na Serigne Ndiaye mi takk ay jaayam dugg ci géej bi donc boo yaasee ak moom ma ci jégalu bu baax di ko jégalu nag moom ak ay mbokk islam dafa bu ma tegee ay koy daan moom dama yaakaar dara dafa dugg dama ko loolu war na mu ñaax quoi ndax ñu ñooy mayante xaalis dara àdduna jaru ko teg ci biir lan la. waaw daan ma teg ci biir waaw dafay la lu ñu wax neen dañu ma euh, suspendre six mois mais trois mois yi du ma bëre yeneen trois mois yi suuf si la lutte traditionnelle wala lutte avec frappe. waaw loolu laa xamagul la parce que loolu du nga koy bàyyi suma ay kilifa. Hmm. ñoom ñoo koy gérer mooy léeg-léeg mooy man woo toog naa xam nga nañ ma wax dëgg yàlla ci njëkk ak teraanga man tam waxtaan ak ñoom parce que lii tamit wax dëgg yàlla lii dafa làmb ci la bokk tamit. Hmm. parce que ñu mbëri tamit ñun duñu ay duñu ay dof dama ngay jégal ay njaay lañ. Hmm. ay kilifa la ñuy àndal ci làmb ñooy ñooy mayante lépp. tey bu bu CNG jël ay matuwaay ci mbëri rek làmb xëy na yàqu ndax stade bu toll ni tey ak ñun bëri bu ñu génnee ñu gauche à droite suñu ay mbok ay kilifa bàyyi seen yëpp topp suñu ay ginnaaw xam nga mm. donc ay comportement war war na mu gën a rafet muy comportement bi ak si lépp daal mm. war na gën a mun rafet parce que ay du ay kaddu taw waxante waxante ay kaddu yu ñaaw non du loolu affaire ci biir géew bi la mm. ab bu ma sifle kenn du la atte kenn du la dimbali kenn du la téye kenn du la téye loxo donc lu mun demee rek nañ liggéeyante foofu affaire yi bàyyi yenn yenn détails quoi parce que li muy yàq dafa bëri daal te dara àdduna jar ko quoi vraiment. Mm. kon yow da nga am trois mois trois mois sursis ak trois mois ferme yoo xam ne doo bëri li traditionnel moom doo ci bëri. waaw mais boo bindee ñaan mën nañ laa baal. ah loolu la maa koy bàyyi sama ginnaaw ay kilifa la parce que équilibre laa nekk xam nga du nuyu suñu bopp Abass bu baax suñu mm. xam nga ak sumay ménagère Ibrahima Mbaye ak waa équipe Fass yëpp. xam nga nii suma entraîneur ba daal vraiment loolu moom man daal maa ngi daal vraiment yaa ngi ñaan ñu teggi daan bi wala da ngay continuer non non ñaan muy suma muy ngel joon parce lu dee dee tamit man wax dëgg yàlla yéenoo benn mbër jàmm yéenoo yéenoo lu jàmm salaam vraiment parce que bu fekkee dañuy dañuy bëri tey man man kese mu ma yóbbu sama kër dara vraiment tey ngel joon tam bu toogee dèjà ans xaw ma un def dara loolu day metti man yërëm naa sama bopp trop mais barke Serigne Touba moom laa gën a yërëm billaay parce que nga toog deux ans amee blessure dafoo dara saa nga bëgg ajaar la ci ay yoo xam ne ni sax nga nekk soutien sa famille bi yaakaar ci xam nga ñun foo ñu xool suñu bopp quoi. est-ce que jot bu ngeen di tooyal seen xaftaan sax ngeen ànd ak seen xel xam ni vraiment dañu ñëw rek ku ci nekk day ñëw pour jël si wërsëgam ci làmb wërsëg boobu nag yàlla moo koy jox kenn ki mu ko jox mu jël keneen ki ñu muñ ñu bañ a defante ay xeex ak xuloo ak dóoranteeg yooyu nga xam ne mën naa ñàkk ci làmb. non man moom ku xam comme Serigne Ndiaye man dëgg ba ni ma waxee billaay dama am kersa pour génn maintenant dama am kersa pour jàkkaarloo sumay nit parce que kenn xamuma ay coow moom ba sama koñ mu dëkk kenn xam ay coow kenn xam ay wax ay wax yu ñaaw ay wax non non xam nga yooyu mm. ma su ma duggee damay ree ma am ndam jug ñibbi calmement leneen ñëw ma jug ñibbi calmement ma ñëpp loolu ma xamee donc bu activité amee dama koy naqarlu billaay walaay dama koy regretté bu baax bu démb doon tey billaay walaay taalaahi du ma sax bokk moom sax yoon ma su ma gëntoon ne su ma amee foofu damay amoon problème billaay walaay du ma am foofu ndax man du ma nit coow xaw ma coow dox ma ci yooyu mais nag xam rek lu war a am day am ñu dañuy masaw bu baax di baalu ñëpp amateur bu àq parce que di ngeen rafetlu ko ñun tey ay gars yi ñuy bàyyi ci làmb parce que da ngay dugg làmb tey jub ah Serigne Ndiaye ñëw na làmb ji kon tey dina neex xam nga diw ñëw na làmb tey dina neex mais nañ saa suñu comportement daal suñu ñëpp daal saa suñu comportement ba xam ne ñoom may nekk xaalis joxante cër joxante respect buñ duggee si géew bi nag non ku mun si moom da nga lekk si moom quoi après bu jeexee jeex na. Mhm. Père Ibra maa lay nuyu bu baax li xale yi wax loo ci dégg léegi ak li nga ji résultat yi nga xam ne jot ngeen ko jëlee ci biir CNG bi. waaw ah, damay rafetlu li xale yi wax rek surtout lu seen Ndiaye de wax. wax naa ne ko léegi ak ñoom booy fay ñëpp bi ñu taxawee. naa ne da ngeen a bokk ndey bokk baay. kenn ku nekk yaay may sa morom taraanga ci biir géew bi. ak nu mu mën di demee rek ta làmb lu mu miti miti ak tension lu mu bari bari rek yéen yéen ko war a mën a defar. benn cinq minutes la rek wala benn dix minutes mu jeex ku ne dem am sa taranga a bëggoon daal ñu rafetal soo mi du ko commencé xam ne daal ay xale lañu xaj na seen yaram mu ndaw day tàng. léeg mais ba am na foo xam boo fa tolloo nag da indi na xel xam ne yow kilifa nga am nga loo bàyyi sa ginnaaw mm. taraanga nga bëgg yow say waajur xoola taraanga jo bu la ko yàlla mayee nga yow bu la ko mayee bu ëllëgee dina la nag teg nañ leen ay daan ngel joon xamal ne ne toog naa deux ans bëréewuma ñu aj ko deux ans mm. un mois un an sur euh, un an boo xam ne du ko bëre mm. Serigne Ndiaye ñu aj ko six mois trois mois du bëre mais bi ñu ko waxee man it déclaré naa waxtaan naa ak ñoom xamal ñaa di ñaan njëgal daal ci xale yi waaw may may ñaan nag ah dinaa def appel nag bind lettre ñaan parce que Moussa dafa nekk ci combat dafa war a bëri bay di ñëw bu hmm. dëgg-dëgg ah te combat combat bëri doolu loolu day yàqal promoteur bi hmm. yàqal mbër yi hmm. donc CNG nag rafet naa li ñuy def parce que làmb jëne mi ngi bëgg a yàqu bu lii amee ñu teg seen i morom ay daan soo ëllëgee kenn ku ci nekk boo ñëw di nga xam ne bàyyi nga famille sa ginnaaw fekk nga famille parce que kenn ku ciy jóg ay ay kilifa ñooy bàyyi seen liggéey bàyyi seen njaboot ñëw di la seetaan si waaw kooku nag da nga koy jox cër ki na sa baay la sa nijaay la sa maam la sa rakk la sa lépp la bàyyi yitteem yëpp sol lu rafet ñëw di la seetaan si àtt na nga bàkku sa mu gën a dépassé may la ko kooku danga war di ko sooraale li ñu xamoon nag bu njëkk waaye defe naa ne daa ni CNG jël man day laa wax man dama par personnel Ibrahima Mbaye bu faas di ménager ànd naa tey ànd naa ci ëllëg bu ñu bëggee làmbu taaru yi daan kenn du ko teggi yat daal na. waaw moom bëgg na sopp naa lii nag waaye nag du tey ah, ñoom ñooñu seen kilifa nag ñu ngi ñaan daal njëgal ñu wàññi daan yi ah wala ñu jéggal leen bu bu ëllëgee keneen du ko def. jéggal ndax yat bu njëkk bi moom daa war a dal. Ah, dal na moom gannaaw dal na. na leen dal na bu baax a baax a baax a baax. waaw bu ñu ko gisee nag lii nag boo liggéey kenn ku ci nekk boo demee ca làmb ji waaye waaye bu nga kañu kañ sa bopp tagg say maam def loola neex bu fu la jotee nga def fu la loola yàlla may nga yóbbu mais nag kantaan saaka sa moroom Euh, te waajur dafa foor wala nga ber sa morom sotti ko saafara li ma dégg léegi bureau CNG di ko wax képp kuy mbër kuy takk ngeen bëri door ba sympatien booy ba nga booy ba nga teg ko ci suuf. Mm-hmm. Mm. waaw jërëjëf père jërëjëf kontaan naa. kaay. non dañuy nuyante ça va alhamdulilah yéenay bokk ndey yéenay bokk baay mais bu ngeen du ci làmb dootuma leen xàmmee ordinateur mii ma ñeme ak ordinateur bi ma ñemewul ci làmb du benn Serigne Ndiaye mii essay levé naa mais bu du gisee ci làmb du ma ko ñeme loolu lan la. ah non xam nga ñun ñëpp bokk ndee ak baay buñ duggee si làmb ji dañuy def fula ak fayda kii day ut lu mu am man may ut lu mu am mais nekkul ne dañoo noonoo ko vraiment làmboo ñu boole rek. mais kii bu may xewle woon dara dafay teew moom bu xewle woon dara man dama fay teew mais du yàq nag buñ tasee ci laamu ñu def fula ak fayda ak jom loolu kese la. di bégal di bégal supporters yi kese ah. hmm. mooy indi coow yi souvent nag mu jaxaso mais loolu yëpp si ah, aaru làmb la bokk mais nekkul c'est pas dañoo xam nga non non waaw. diggante ordinateur laal. mais mooy li mooy mu wax rek. sport bu defarul du xaajale. ñun suñu temps bi li ñu boole dafa gàtt maanaam li ñu bu gàtt mooy du combat xam nga combat mun naa bëri ak yow doom revanche mais benn année mën nañu ci bëri fois benn année mën nañu ci bëri dix fois donc léegi imagine benn année ñu ñëw benn cinq mille dix mille boole di digg géew donc dara wax du bëri géew bi mooy gisé ku mun sa moom duma ngaaka rek mooy am na muy réactionné boo nekkee nante wóolu la yow dëgg ba nga dugg si digg géew bi faj nga faj ko foofu parce que bi géew bu boole mais dafa nice ñoom bokk ndey bokk baay ñu problème benn takkusaan nga am yóbbu sa kër un million deux millions benn takkusaan rek la problème yu bëri loolu di nga ko caaxaane di nga foowee loolu ah, vraiment nañu xoolaat comportement yi daal gaay euh, Ordi yow bi Serigne Ndiaye duggee yow yaa dugg gars yi déglu nañ la wala waaw non xam nga Serigne Ndiaye dafa dugg waxtu man ma dugg sama waxtu mais nekkul ne moom man maa tax mu dugg si air boobu wala man loolu moom moo tax ma dugg si air boobu làmb ji lañ dabb si woon ñun ñëpp temps bee demee noonu rek waaw mais du dara CNG bi ci biir déglu nañu. waaw CNG nañu. waaw waxtaan nañ li ñu doon dee waxtaan nañ ko. vraiment. yow ci lan lañ la convoqué non man xam nga bon dañ ma convoqué parce que làmbu njaafat bi man ak euh, rajaxe ñoom dañoo des comprendre à cent pour cent nu mu demee. parce que pour ñoom xeex la dañoo jote foofu demewul noonu parce que euh, defe naa man sax bu ñu bëggee téye licence rajaxe am na lu mu fa wax euh, ndax rajaxe sama rak la quoi hmm. dem naa si commission bi ñaan naa leen pour ñu delloo ko licence am ok moom itam deful dara deful dara bon xëy na ñi ko supporté ñoom pour d'accordul victoire bi ñoom ñu ñëw taxaw si géew bi xeexuñu xuloowuñu mais dañoo ñëw rek taxaw quoi làmb mën a tula daw làmb ji yàqoo foofu mais pour ñoom jote la mais du jote quoi lañ doon waxtaan rek nañ ko féete na bu war c'est quoi. dóoruñu la benn. non non non man duma ma xeex du ma xeex si làmb du ma xeex si làmb mosuma xeex. non du non dër comme nga am combat loolu du xeex de. bëre la ba tey mais comme nii nga xeex ma ma taseeg sama moroom si géew mu tàkk ngeen ma tàkk ngeen ma xeex ak moom mos a am. yaakaar champion bi nga doon ci làmb est-ce que li traditionnel ngàdd yi ñuy xewal ci làmb warul mën a denc ci làmb parce que ngàdd yi day dem ba sax léegi day nduróog dóor non xam nga euh, loolu euh, règlement CNG la xam nga CNG moom ñoom ñooy traité loolu quoi li ñuy tere ak lu ñu dul tere mais man bon wax dëgg loolu duma ma si développé daal mais vraiment ah no xëy na CNG buñ gisee loo xamante ne comme li ñu def tey xam nga tey li tax ñu woote mooy dañoo gis loo xam ne bokkul ci làmb moo tax ñu woote waaw ah, xëy na loolu yëpp dinañ ko dindi en tout cas man li ma in ñor daal mooy man su may bëre dinaa protéger sama bopp ba yeneen action yëpp mu nga nit duma ko def quoi mais la des yëpp ku ne daal ak ni ngay sa façon bu bëre quoi léegi nag ku def lu see loo xamante ne bokkul ci làmb ji waa arbitre baa ngi gis xëy dina la dina dina arrêté combat bi jox la avertissement wala mu wax la ne bàyyi li ngay non jàpp ma ko man damay bëri rek jàppaguma dara ah. bàyyi ba saison bi jeex rek. Hmm. waaw ñu soog wax ci loolu. Hmm. waaw incha allah. aja kontaan si futur maire hmm, futur maire Pape tey looy def fi waaw bon maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu internautes yi suivre euh, chaîne Wassare TV. Euh, ñun dafa am rôle bu ñu sant ñu joué ko ci jeunesse bi. Euh, monsieur le maire santuñu ko. avec euh, l'initiative carte blanche bi nga xam ni mooy dépositaire u mandat wu jeunesse bi. mooy sentinelle mais également bëgg a nekk voix wu jeunesse su euh, Guédiawaye en général mais commune de Golf en particulier lamb boo xoolee essentiellement ay jeunes rek ñoo ci yëngu. wala boog sport de façon globale. tey euh, ñu am ci euh, part bu am solo ñun waa golf parce que am nañ ay doomu golf yoo xam ne dañuy yëngu ci lamb. notamment euh, Serigne Ndiaye 2 bien vrai que écurie Fass la la la fa la nekk pensionnaire mais cosaanam dëgg-dëgg golf la donc tey ñu gunge woon ko mu ñëwoon arène national Euh, parce que dañ ko convoqué woon. ci benn bis bi bu doxoon digganteem ak le lutteur Ngel John. donc euh, ñu doon tranché mbir mi xëy na teg nañ ay daan ñoom ñaar ñëpp seen kaw ñi leen di encouragé di encouragé Ngel di encouragé également Serigne Ndiaye mm. donc euh, di leen wax tamit euh, ne làmb sport la. boo xam ni dafa am complexité bu ci nekk parce que dafa ànd ak culture ku si nekk booy ñëw dafa am euh, looy représenté fi ngay représenté ci wàllu quartier fi ngay représenté ci wàllu ethnie mm. loolu da nga koy fësal donc loolu moo tax laa mu nekk sport boo xam ne dafa particulier par rapport ak yeneen yi mm. mooy volet culturel boobu nga xam ne daf ci am prépondérance mais également euh, moom lu muy drainer en terme de représentativité euh, ci ci territoire yi donc nag euh, loolu yëpp day peser ci kaw athlètes yi donc ñuy ñaan encore une fois de plus euh, euh, de de la clémence de la part de ñi nga xam ne ñoo ngànk CNG bi ñuy comprendre parfois jeunes yi mais tamit di wax jeunes ne lii seen yoonu teranga la buñ ko sàgganee buñ ko foowee nañu xam ne ay frères lañ liggéey rek moo leen boole donc nañ ko rafetal Euh, animosité yi ñu wàññi ko parce que boo xoolee lii benn euh, situation la par rapport ak situation globale bi xew fa ni ci làmb ci nga gis euh, dënn yi ni muy gaaw a tàngee ni muy gaaw a jigee perte de contrôle bi ni muy ni muy ni muy ni muy amee donc di leen appeler à la retenue. donc loolu ci la ñuy woo jeunes yi nga xam ne ñooy ñiy yëngu ci làmb mais également ñi leen di accompagner donc notamment gis nañ problème bi amoon entre waa parcelle ak waa jàmm gën. Euh, noonu lañ ko mën a wooye donte ne du mbëri directement. di wax ni daal làmb facteur de développement la. luñ ko euh, luñ ko mën a euh, ak ak luñ ko mën a décrier décrier facteur de développement la parce que réew dafa nekk benn tissu économique boo xam ni dafa bëri ay cellules cellule bu si nekk dafa am part bu am importance boo ci joué. donc nag làmb nag kenn mënu ko négliger parce que jeunes yi ciy yëngu dafa am benn benn benn benn benn en tout cas réseau économique bu ci am boo xam ni. avant làmb ba jour làmb infographiste yi ñu ngi ciy liggéey imprimerie yi ñu ngi ciy liggéey ñiy jaay lekk ñu ngi ciy liggéey Euh, chauffeurs yi ñu ngi ci liggéey mooy milieu milieu transport bi et cetera et cetera donc euh, euh, dans la vie sociale nag dafa bëri ay champ y a le politique bi nga xam ni day interféré wu ak le champ sportif le champ culturel dugg ci le champ sociale donc benn mënu dem bàyyi moroomam donc xale yi nga xamante ne actuellement dañu nekk ci làmb jàppee ko li nga xamante ne mooy foo jàppee ko li nga xamante ne mooy da ngay ñëw jël si sa wërsëg dem bokk ko say njaboot des fois saaga en tant que sportif saaga mun naa tax mbër dóor mbër wala saaga mun na laa déstabiliser ba nga def loo bëgg ta def. waaw bu fekkee sportif nga saaga di la déstabiliser rek yaakaar na dese nga nekk sportif parce que sportif mooy xeetu tarbiyu la bu ñu la tarbiyu boo xam ne da ngay pare pour affronter lépp loo xam ne lu jafe la. ci biir sport mais tamit ci àdduna de façon globale moo tax sportif foo ko fekk dafa war doon ku yaatu ginnaaw ku yaatu dënd koo xam ni ko lu jafe lay nekk ànd ak loolu tamit CNG peut-être euh, temps yi tamit maa ngi leen di ndokkeel parce que gis naa organisation boo xam ni tant soit peu ñu ngi koy gën a améliorer ci ni ñuy liggéey mm. donc lii bu jë bu delluwul ginnaaw bépp mbër boo xam ne nar ngaa saagati wala nga provoqué ci wàllu dóor wala ci xeex di nga ko bàyyi xel ndax di nga xam ne boo ko defee bu fekkee liggéey moo la tax a jug ci làmb dootoo ko defati parce que di nga ni lii su ma ko defee mën na yàq sama liggéey parce que dan may donc dëgg-dëgg daal saaga euh, du jaaduwul waaye lu buñ la ko defee yow mi sportif fii warul tax nga nga nga perdre sa sang froid pour attaque ki nga xam ne moom moo la saaga jërëjëf jërëjëf jërëjëf Euh, mbokk yi gis ngeen noonu réaction Serigne Ndiaye 2 gis nga réaction nag ki nga xamante ne mooy ordinateur am na ci yenn mbër yoo xamante ne vraiment bi ñuy génn du ñu mer bëgguñu sax wax ndax jàpp nañ ni ñàkk wax mooy li gën ndax bu ñu waxee mën nañoo wax vraiment lu leen àdduna di xeebee wala ñu wax loo xamante ne vraiment bëgguñu ko woon sax wax ku ci mel ni Doudou Sané booy fay ak Ngel John ñoom ñett ñëpp vraiment dugg si nañ mais boo gisee ñàkk wax gi mooy daan bi dafa dal seen kaw dal bi mu dal seen kaw na mooy ku ci mel ni du euh, booy fay mu ngi dégg ni daan nañ ko trois mois mais moom trois mois yooyu ba tey nangu cee leeral moom it Doudou Sané noonu waaye ñoom ñëpp nangu ñoo leeral parce que bëgguñu sax di di di gën a sori ci ci wax jooju euh, ku ci mel ni ki nga xamante ne mooy ngel jonn règlement bi da ko daan deux ans deux ans et un an lay toog yoo xamante ni du ko bëre yeneen un an yi sursi la vraiment mu nekk loo xamante ni euh, saa su ne rek dañ koy wax mbëri di leen wax làmb folo la làmb kaf la làmb ree la parce que làmb dafa am ñoo xamante ni vraiment ñoo gérer règlement boobu ñoo gérer li nga xamante ni mooy yar mbër gi ay tegginam bu ñëwee ci làmb ñu xam ne réglement dafa am CNG bi loolu moo leen fi tax a jóg tey nag CNG bi moo génnee daan yooyu daan ko mbëri vraiment dañuy ñaanaat rek comme ni ñuy ñaanee mbër yëpp suñuy frère lañ am na ci ñoo xamante ni li ñuy am as néew ci làmb ca la ñuy yóbbu seen kër ca la ñuy dépense CNG bi ñu gën ci bàyyiwaat xel vraiment daani lu mu métti métti ñu gën koo mën a woyofal ndax yaakaar naa ñu woyofal ko mooy li gën mbër yi tamit ñuy xoolaat bu baax ñi ñuy àndal te vraiment bu ñu ànd ñoom li ñu leen di yàqal moo ëpp li ñu leen di defaral ngeen jël leen tegee ne di ànd ak ñi nga xamante ni vraiment seen xel sell na vraiment mun na dund nañ sport te xam nañ li nga xamante ne mooy sport sport des fois nag ñiy ànd ak mbëri dañuy pousser ci mbër mi en ce mu def loo xam ne sax bëgg ko woon def ñu leen di jaajëfal bu baax arène nationale la woon doon leen dégteel li nga xamante ne mooy convocation lutteur yi CNG woowoon ci lutteur traditionnel yi di leen jaajëfal bu baax a baax di leen jox dig daje ba la incha allah ci beneen xew-xewu làmb ba jërë ngeen jëf